waaye suñu xel gën naa dal keroog bi ñu nekkoo ci pouvoir bi ba noppi di continuer di def lañ daan def bu doon Macky Sall xam ngeen ne campagne nag keesu état bi yëpp bu doon Macky campagne na ko waaye uh-huh. waa ji na du ko laal du ko jege gars yi waa ji jàngale waat na lii rek daf lii kii kii patriote la daan ne Pastef lañ daan def ba agsi ci nguur gi dañ koy continuer cheikh bi nañ leen xalaat loolu lii kenn mësu koo def Sénégal moo tax Sonko mooy patriote ñu ngi koy ñaanal yàlla mu woyafal yan bi mook président Diomaye Faye ba ñu yeggale incha allah ñu gis ñu def ko ci liste waaw waaw loolu loolu ñëpp ci kontaan mm-hmm. ndax ndax ndax ndax ndax Sonko bu soxlaa ku soxla ñàkk mm-hmm. xam nga Cheikh Bara dane woon du falu mm-hmm. ñu ne ko yow doo fal sa bopp di Sonko na ko kaay falu na falu tane ni ko waaj wax tane kii rek te wëyal rek euh, yow eh, eh, eh. ku ci ne la ne si sa gafa nga rocci def parce que dafa woote ni nañu def ba jël nguur nañ ko defee ba wëyal nguur waaw parce que boo gisee euh, américain bi dafay wax toujours the way you get to the power. Make sure you stay the same way for you to be able to stay in the power. Because at the moment that you stop doing the things that get you to the power, you got to start counting the day for you to be out of power. mooy li la indi ba ci nguur ba na ko sàmm boo nekkee ci nguur ndax bés boo ko bàyyee. commencé lu wàññi bés ba bës boobu nga ko bàyyee mm-hmm. commencé lu wàññi say bésu génn ci nguur te yàlla dafa def ni dañ fay def lu fi kenn defut mooy say militant nga ne leen kaa leen bokk mm-hmm. ñu ne lan ñu ne la bokk naa nga ne ko déedéet mu ne dama bëgg yéen ngeen ñëw ànd ak man ñu defar Sénégal mm-hmm. buñ koy defar kenn ku ci ne sa dërëm ak sa dërëm jaaykatu boutique bi jaaykatu gerte bi euh, ménagère bi ki nga xamante ne sax amul liggéey di fortaatu ba jëm nag ba ki nga xamante ne dañ koy fay. Mm-hmm. si li nga xamante ne mooy l'argent du mm-hmm. contribuable. Mm-hmm. donc loolu rek war na dal xel. te war na mën a euh, yóbbu vision bi fu sori ndax defarum Sénégal du benn nit a koy def. ñëppay ànd def ko raison pour laquelle te nga gis ñëpp ñëw donc mobilisation boobu mi ngi déparé ci. kenn am xalaat bokk koy nit. nit yooyu def benn projet sénégalais yi ñu jaay ko sénégalais yi jënd ko cinquante quatre pour cent ci cent tey ñu jëm ci yeneen jongante yoo xam ne daf ñuy ñoŋal li nga xamante ne mooy li ñuy wax asseoir ce pouvoir mooy législature parce que gagné nañ magistrature suprême ca fee nga xam ne mooy élection présidentielle tey ñu jëm ci li nga xam ne mooy législature parce que dañ koy soxla pour mën a légiférer des lois pour mën a doxal tey la Sénégal gën a soxlawaat ay doomam li ñu mobiliser woon démb tey la ñu gën a soxlawaat mobiliser li ñu defoon démb mu baax tey la ñu gën a soxla ñu defar ko mu gën a baax. parce que li ñu bëgg ci Sénégal du benn fan lañ koy def du ñaari fan lañ koy def raison pour la laquelle du benn nit moo koy def du ñaari nit ñoo koy def mm-hmm. ñëppay ànd def ko ñu ànd ci ak lan inna allaha ma sabirin sabr ah non non kii kay wax na lépp. jërëjëf Thérèse. Ah. moo waraloon suñu teewaay fii tey ñu fas yéene nag jàppale ko à ce mu am une majorité absolue à l' assemblée nationale parce que tamit pour que mu mën a wéyal liggéey bi nga xamante ni sumb na ko. Euh, wàllu politique c'est pas c'est pas bëriwul lu ñuy gis un artiste am benn position moo waral cette motivation là a taxaw affiché wu wane nga nga àndal waaw xam nga xam nga tout d'abord xam nga euh, Ousmane Sonko man dafa nekk nit koo xamante ni ku Afrique yëpp di tiitaroo man mu jege ma man bokk ak man réew mi yamul ci loolu ñu bokk li nga xamante ni moom mooy euh, euh, mën naa wax ay ay mbokk ndax kuñ Alaaji Rawaan Ngom wax dëgg neex yàlla radiyallahu taala anhu ni ndar kon yaakaar naa wax dëgg ne yàlla tey jii euh, jàppale kooku ci jikkoom bu rafet ci am yéenam bu rafet ci réew mi wax dëgg neex yàlla nit waru ko warul di ànd ak moom sax di ruus wala muy jéem am lu muy xalaat ñun wax dëgg neex yàlla réew mi nu am rawatina koo xamante jàmba